Fatou Mbaye laa tudd waaw man maa yaay Aïda Mbaye alhamdulilah rabbil alamin maa ngi sant yàlla di jul ci Mouhamed di sant samay waajur di sant sama borom kër bi nga xam ne mooy papaam ndax metti woon na torop ci ñun sonnoon nañu ñaari fan ñett yi bëggatuñ dara lekkuñu naanuñu nelawuñu suñu dëkkandoo yi aussi tam ñëpp kenn ñëpp ci jàpp sama mbokk yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp yàlla defal ñu jàmm lu metti la daal képp ko dundul moom xamoo ko metti na trop metti na guddi yëpp nelawuma gëj na maa lekk yàlla xam ne mardi ba mu demee ba léegi tooguma ci bool xam na mu mel ba fii may waxee wu lekkuma ba sama biir sax dafa dee ndax naqar bi jaaxle rek doom ju jigéen nekk àll xamoo ci lu mu nekk xamoo mu ngi dund xamoo dee na xamoo mi ngi lekk xamoo mi ngi naan xamoo ñan la nekkal loolu dafa metti mais ci suñu dimbal suñu borom daal defar na lépp macha allah. sànq lañ toog fekk fu nekk dem nañ fa ba yàlla def rek ñu jékki-jékki rek taxi gaare ñu yuuxu ni ñëw na sant yàlla waaw alhamdulilah. waaw moom nag jotuñ cee waxtaan parce que papaam nangul woon ñu enquête ko wala ñuy wax nee nañ ko bàyyi mu reposer daal ba dal waa ba xelam nekk ci moom ñu doog a xam lan lay expliquer. Mm-hmm. Mm-hmm.